Euh, mel na ni on avait du mal à avoir tey peut-être ñu mën a nekk à la hauteur naam sax dina mën a nekk à hauteur tey jii nii régime gi fi nekk. Euh, léegi nag waaw. am na lan lu bees lañ mën a découvrir. léegi nag Amadou Ba a fait toujours. Mhm. du Amadou Ba. ok mooy war na la ne la man sama kudd jàmm la ràcc. ca kaw. Mhm. waaye ca suuf est-ce que kuddam jàmm la mhm. ràcc. nga Amadou Ba moom noonu lay def dalay war na la moom xeexut. xuloowut ñaawoowut xiiroowut taasoowut amul boo xoolal ca kaw loola la yoon gisoo bi mu demee Touba. Mhm. ñu laaj ko ci impôt yi non na na na journaliste yi fay na état bi xaw a yërëm amul ba loola la yoon mooy am na nun communication boobu lu mu ci jublu. am na nun koy waxee ci olof neex sedd xaw ma neex rey xaw ma sedd xaw ma lan dama fàtte terme maanaam day mat day ëf ci suuf di. day mat ci suuf kon mer sedd la. Ah, mer sedd amul ba noonu la mel du yee du yàgg noonu dalay kare sa ca kaw hmm. bon man jàmmalaa laa ràcc discours apaisant ci suuf muy xam mais Cheikh est-ce que mënuñu ko mënuñu jàpp au sérieux tamit déclaration ñoom ils ont à le surveiller comme du le feu sur le ñoo ma ko gën a xam sax ndax ñoom ñoo nekkoon ak moom Ba moom opposé wul ci ci base politique bi fa mu mënee ñëpp xam nañu Macky Sall mënut a def vingt deux ans ci affaire yi Amadou Ba ser na ko téye réew mi kooku doo xaw a ragal loolu moom xaw a nu xaw a naagu la te ku naagu sànq. Mm-hmm. Amadou Ba Macky Sall mënul de vingt deux ans yi de deux mille un mu ngi ci affaire yi ba deux mille vingt deux occupé poste stratégique moom la Amadou Ba wër noom bu tée réew mi te presse ba ñépp xam ko xam ni kii c'est le patron de la presse tée réew mi boo ko boo ko boo ci naagoo sànq sa bopp ils ont le surveiller mais duñ ko may dara man ma sama RG yëpp la ñuy jël taf ko ko. H24. à quelle fin mais di ko surveiller Amadou Ba mais il est capable de beaucoup de choses. Amadou Ba ndax ses relations à l'international par rapport national comme international. capacité de donc c'est un candidat à prendre au sérieux pas un candidat à prendre au sérieux mais c'est un élément à prendre au sérieux parce que législative. parce que politiquement bëri na bëri na échéance yi nekk suñu kanam Amadou Ba amul benn nuisance gi mën a. amal la tout à pourtant yaa ngi wax ni kat am na looy magnifier di ko loué ci parcours am. ci ah capacité de nuisance mais est que il peut le faire aussi sur le plan politique aussi. parce que aujourd'hui il a un appareil politique moom na film nii non pour le moment. rien logiquement statistiquement parlant Amadou Ba naa que tey jii nii bilan de la l'APR bi nga xamante ni nekkoon na fa candidat ak li mu amoon ci xob yi te gis naa ko sax mu def leen day waa APR dans son discours tudd na leen euh, rafetal ci kàddu gi waaye mel na ni tamit am na loo xamante ni tamit euh, takk na fitam bi yoon wax ko te ñu bëri ci yéen mel na ni jàngatoon ngeen ko alaakola day yàgg rek waaye ànd mag mag yi dafay test mel na ni moom la dëggal au delà de tey régime gi mu bëgg a jaamaar lool mais bu ñu delloo ñoom ci seen formation politique bi mu jóge ki fa ne woon jamono ji am na leneen lu mu tal tas na bennoo Amadou Ba jël na yoonu boppam tey opposition bii bëgg a wu bëgg a jaamaarloo ak ñi fi nekk tey jii ni est-ce que on va par retourner ca démb ña doon wax ni on va réduire ñi toog tey à leur plus simple expression est-ce que ñii déjà ñoom réduire ñu seen bopp à leur plus simple ci gisagunu pois gi nga xamante ni mën na dëkku ñu fi nekk gum li ci kanam nag yàllaa xam. bon déjà pour Amadou Ba politiquement fi mu jaar ak parcours am moo wane Amadou Ba ba jusqu'à présent xaw ma nag ëllëg mais il ne pèse rien du tout xam nga lu tax. Mm-hmm. Amadou Ba dafa boole l'appareil de Benno huilé. ah mm-hmm. bi def douze ans au pouvoir. Mm-hmm. dem ak ñoom amuk dara. Amadou Ba kon bu yubbee bébé bu bees dafa yow bi mu génnee Benno Amadou Ba jàppale ne 34 pour cent yi wàññeeku na minimum ba 10 pour cent loolu benn la. Mm-hmm. maanaam boo ko jëlee ci statistique. Mm-hmm. Eh, appareil bu puissant bi mu gàddu woon. Mm-hmm. ci élection présidentielle yi. Benno moo ko permettre mu am 34 pour cent yi. ak doute bi ñu semé ci xelu ñenn ñi ñoom Sonko danger lañ nangam nangam. gëmuñu sëriñ si maanaam. wax yooyu yëpp nga xam ne dissipé wu na léegi. Mhm. moo tax Amadou Ba am 34 pour cent. Mhm. bi mu demee créé doomi boppam jàppal ni dafay réduire ba 10 pour cent. beneen bi ñan la coaliser maanaam ay vestige yu parti politique. vestige yu PS vestige yu PDS vestige yu APR vestige maanaam ay vestige rek la dajale. li ma gëm mooy. Mhm. ci terrain politique. amul capacité de nuisance waaye ci ay relation ak administration ni mu ko téye ak ay relation am ak façon de faire mën na nuire lu bëri bëri bëri léegi nag nit la ku ñuy surveiller bu mm. baax a baax am na am na internet bu xorom nee na day ragal mbir yi doon moor ne yéen itamit ci waxtaan wi ngeen bokk. Euh, effectivement euh, donc fi ñu koy bàyyi xel. ndax waxtu question yi soriwul de. <laughs> non fi ñu koy bàyyi xel daal man gëm naa ni mooy. non non il faut nga dikkaat cest à tey ok euh, am nga loo loué loo magnifié ci parcours am kenn du ne Amadou Ba jàngul. Mm-hmm. kenn du ne xamul administration. kenn du ne du nitu relation mais par rapport ak Sénégal ak réalité Sénégal parce que tey ñi fi toog tey boo gisee ñu am chance gi gi ñu amul mooy ñii dañoo teel a comprendre li woon ci bopp askanu Sénégal ci seen bëgg-bëgg ñu teel cee répondre xam nga toog ci bureau yi di xalaat di ne ci théorie ak na ci terrain bi euh, dugg ci biir askan wi xam seen i aspiration nga jëfe ko c'est autre chose donc lan nga jàpp ne tey jii nii. Euh, man daal euh, li ma gëm. Mhm. mooy. dana apporter un plus ci terrain bi dana ci mhm. apporter moom euh, cafkaam mhm. li li nga xam ni mhm. moom mooy style am dana apporter benn renouveau mais mënul nuire trop trop trop xam nga Amadou Ba fi mu mën a nuire mooy mën naa fexe ba le système active bu baax contre la mooy presque taxaw Euh, nu mu tudd syndicat wu lii grève lii taxaw xam nga loolu day créer benn ras-le-bol au sein de la population. parce que am na am na am na jaar jaar. am na lu mu ci jot am na link boobu am na link boobu nag loolu mun na ko use wàcc ci terrain bi am dara. Amadou Ba il peine à convaincre les Sénégalais façon de faire am la. Mhm. Amadou Ba grand électeur la gëm. yow yaay homme public temps yaay mhm. Yamoussa. Mhm. nit ñi faanañ la dañ lay topp journaliste nga ma yaa récupérer Yamoussa pour Yamoussa indil ma ñi ko topp. te xamuñ ne Yaa saa ñi ko topp toppuñ ko ngir orientation politique mu dem fekk waykat bi dem fekk sëriñ bi dem fekk euh, nu mu tudd personnalité publique c'est-à-dire Amadou Ba politique gu grand électeur la gëm loolu dafa xewi jamonoy socialiste la amoon. pour ñu tëj ci Amadou Ba. Mhm. li ma xalaat tamit mooy est-ce que mënuñu dem ba assister tey régime bi ubbil ko buntu wala tey mu apporter beneen forme de s'opposer au lieu muy noonu ngi fi nekk parce que man mosuma gis Amadou Ba am fitu maanaam affronté maanaam frontalement Sonko ak Diomaye tout le temps dans ses discours ci ay doxalinam da ngay sentir benn diplomatie da ngay sentir benn déjà euh, lu ñu jot a xam ci rapport yi mu am ak ñi fi nekk est-ce que wàllu woowu noonu tamit jàppoon ne mën na dem ba jur loo xamante ni nii mën na bañ a noonu jéem a ànd ak ñi fi nekk. du leen affronter ci kaw mu ci suuf rek. mooy façon de faire Amadou Ba dafa am style am. mën na ànd ak ñoom wala mënul ànd ak ñoom xel mën na ko. nangu wala Amadou Ba du ak Sonko ak Diomaye loolu nii hmm. euh, boo amul loo ci yokk. non non c'est bon Amadou Ba kay viré ko may nañ sax na service commercial. Hmm. mbokk yi balaa ñoo dar képp jotee waxtaan wi ci dernier point gi nga xamante ni tamit soxal na euh, réew mi surtout ci wàllu sport ndax. fu ne ñu ngi koy waxtaanee eh, ñi toog di naan ataaya jotaay waxtaan yi fu ne donc question bi may njëkk a jël mbokk yi ngir yóbbante ko eh, waaw am na am na am na am na mbokk mu ma gis muy wax wàllu milliards yi nga xamante ni dañ koy jiiñ amadu Ba mu jàpp ni eh, mi ngi amal parti am mais est-ce que war na ko boole ci ñi war a rendre compte ndax it. yàgg naa mi ay fonction yoo xam ne bëri na moom it lu mu war a leeral Cheikh Ousmane lan nga ñu ciy tontu yooyu moom euh, IGE ak autorités yi ñoo koy décider loolu moom IGE ak autorités ñoo koy décider ak bu dee rapport épinglé na ko ou bu dee rapport épinglé na ko dana am suite judiciaire mm-hmm. bu dee rapport épinglé wu ko loolu am mm-hmm. suite judiciaire loolu moom loolu laa ci gëm mm. mm-hmm. ñu dox di wéy euh, parce que question yu bëri ci Amadou Ba la gën a jëma ah. dafa mel ni euh, partiyam bii mu bëgg dëgër a bëgg a taxawal mhm. euh, ñu bëri rafet ñu ci njort daal jàpp nañ ni daal xëy na bañ a toog a toog maanaam toog bañ a def dara rek waaye doonul lu ma amal loo xamante nii vraiment ñoom rafet nañ ci njortu ko Amadou Ba daal li ma gëm hmm. mooy dafa dugg ngir perturber champ politique bi utiliser faayu nguur gi exploité ko jéem am dara léegi nag ndax dana yomb pas la taanul dira ok moom bi dina ko wax incha allah. Mhm. Mhm. ok euh, voilà ñoom ci question yi maanaam ci wàllu richesse am bi euh, donc ñu tëj ci Amadou Ba parce que li ëpp ci question yi. daanaka ci wàllu voilà li ñu ci jot a jël euh, doy na kon dernier point yi mbokk yi encore une fois nu ngi leen di nuyu di leen. masaw ndax jotaay wi vraiment euh, regard mi ngi tiire à sa fin Cheikh Ousmane dañuy dem ci wàllu. football football. donc junjoon naa ko sànq ak Abdoulaye Seydou Sow ci wàllu match Sénégal Burundi. mais tey Cheikh Ousmane jàngat gi lan la war a doon ci situation équipe nationale de football mu mel ni depuis bi ñu jëlee CAN bi ba tey coach bi euh, ñëpp a ngi koy joxoñ baaram tuuma. mu mel ni dafa réer ci ay calcul dafa réer ci ay stratégie am ñu ne dafa tële am ñu ne vraiment war na mën a teggi ndombal tànkam parce que li dal équipe nationale bi du kenn ku dul moom moo nu ko yóbbee donte à chaque fois mi ngi jéema tontu di jéem a apporter réplique di jéema défendre boppam ci ay argument tey ban njàngat la ñu war a mën a def ci équipe nationale Sénégal appréciation bi lan la coach bi tamit tey yow ban njàngat nga am ci aveniram par rapport ak équipe nationale Sénégal ndax mbir yi nii muy demee nii ça va de mal en on a besoin du 109 au sein de la tanière <coughs> de la fédération de manière générale. Mm-hmm. Aliou Cissé gàcce ngaalaama. il a marqué son empreinte ci histoire ci histoire sportive au Sénégal. Mhm. particulièrement football. Aliou a été capitaine ci équipe bi nga xam ni euh, comment dire moo njëkk a dem coupe du monde. Mhm. du dëgg. Mhm. Aliou euh, a été équipe bi njëkk jël coupe. yaa ngi comprendre mais Aliou a fait.